bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Alioune Badara Ndiaye ci xasiiday Sëriñ Tuubaa yim baaxoo ànd ak yéen mu dellu war ci kàttanul yàlla di ànd ak yéen ci xasiida gi di xasiida tuub fan yii moo dañoo bëgg a jublu ci xasiiday tuub muy at tawbatu nasuux aljaalibatu lil futuux lil imaami alfarid alabdi alqadim qaada allahu taala alxanaatira almuxantarata min almazidi alladunniyi mi maxtaarahu allahu tabaraka wa kon xasida gi nasuux la tudd mooy tuub gu sell ñu bàyyi xel sëriñ tuubaa ay waxam ñu bàyyi xel at tawbatu lii moo di tuub ga an nasuux gay aji sell aljaalibatu gay aji ñoddi lil futuux ñeel ak ubbiku ak ubbee mbokk yi waxoon naa ci bi may leeral xasiid ak tuub googu di astaghfirullah bihi nee na ay bàkkaar mooy waral ak tëju ni ñu bari dañaan dama tëju dama tëju lu ma yóot lu ma jot lu ma def nangam lu ma bëgg rek du réussir loolu bàkkaar moo koy waral bu leen ci kenn nax moo tax sëñ Tuubaa ne al jaalibatu lil futuux tuub gu sell goo xam ne day day day ñoddi ak ubbeeku yow mi tëju woon di lijjanti dara <clears throat> ak lu mën a doon ñaan ca ba sonn amoo ko xoolaatal sa bopp dellul nga tuub tuub gu sell ni ñu ko alxuraan digalee woon ci sóoratu taxrim ya ayuha alladina amanu tuubu ila llahi tawbatan nasuha yéen jullit ñi ngeen tuub jëm ca yàlla tuub gu sell ndax yàlla jéggal leen seeni bakaar te dugal leen àjjana kon at tawbatu nasuux am na a tawbatu nasuux al jaalibatu lil anwaari wal futuux am na at tawbatu nasuux al jaalibatu lil futuux mooy bii ñu mi ngi tàmbalee ci bismillahi rahmani rahim xamdan li rabbil gaafiri zanbi lana qaabili tawbina li lutfihi bina mu ne xamdan sant naa ak sant maanaam da dañoo nëbbu ahmadu xamdan ahmadu xamdan la ñu xasaf ahmadu gi mu des xamdan xamdan sant naa ak cant li rabbil xaafiri ñeel sama borom mi nga xam ne moo baax ba tudd aji jéggale ja li rabbi ñeel sama boroom al xaafiri zan bi kay aji jéggale bàkkaar xamdan cant naa ak cant li rabbil xaafiri zan bi ñeel sama borom mi nga xam ne mooy aji jéggale ja bàkkaar ya lanaa ñeel na nun jullit ñi xaabili taw bi naa mooy aji nangu sunug tuub li lutfihi ngir ak ñeewante gu mu ñeewante binaa ci ñun jullit ñi alhamdulillah tey nee maa ngi sant yàlla yàlla ku mat a sant la ndax boo ko neexoon mu ne digal naa leen lii far force ngeen def ko tare tere naa leen lii faaw ngeen bàyyi ko ku def lu ñuy tere ñu rey la léegi wala ñu mbugal la léegi ndax loolu amoon na ci xeet yu njëkk ya yéen ñiy jàng alxuraan gis ngeen kasabat aadun kasabat xawmu luut kasabat euh, dégg nga samuud nangam nangam. wa ilaa aadin aqaawam huut bari na lool ñu yàlla alak fa axasnaahum fa axasnaahum wala fa axasathum sayxata ñenn ñi mu ne eh, ngelaw moo leen moo leen jàpp ñenn ñi mu wàccee ci ñoom ab taw taw bu doy waar ñenn ñi ku nekk rek ak xeetu mbugal ba la mbugal lool gis ngeen bari na lool kon suñ borom moomu mooy nangu ak tuub ngir ak ñeewant gum ñu ñewant mu ne suma salaatan topp doolee teral maa salaamin ànd ak doolee wóolu mustadim guy aji sax alal wasilati yàlla nekk ca euh, ka ñuy sukkandikoo shafiina mooy aji ràmm sunu alkarim te mooy aji tedd ja al wasila mooy yoon wi nga mën a jaar ngir am la nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag mooy wenn yoon wi nga xam ne ci la ab jullit mën a jaar ngir mën a dem ca suñ borom taman alal wasilati yàlla nekk ca sëriñ ba kanga xam ne mooy kenn rek mooy sëriñub jullit ñëpp nit ku baax koo dégg rek yonent bi salaa salaam mooy ab sëriñam yaa ayuha alladina amanu taqullaha wabtaxu ilayhil alwasila alwasila ta moo nekk noonu mu ne salaatuk salaamu yàlla na nekk ca ki nga xam ne mooy sunu wasila mooy sunu sëriñ waaye moo ñu ramm mooy aji tedd ja mu indi tur wa nag mu ne muhammadin moo di muhammad da ko junjoon léegi indi na tur wal aali ak ñoñña wa saxaaba ak saxaaba ya maa gufira li feeg jéggalees na azan bu bakkaar ba li di inaa ba ñeel boroomuk tuub salaatu ak yàlla nekk ci yonent bi ak njabootam ak ay saxaabaam li feeg ki nga xam ne day tuub yàlla mi ngi koy jéggal ay bakkaar rek yàlla na salaatu ak salaamu nekk ci moom te lool du dañ mukk du dañ mukk ndax suñu borom moo wax ci alquran walladina isaa faalu faaxisatan aw zalamu anfusahum dakarullaha fastaxfiru li sunubihim wa man yaxfiru dunuba illa allah walam yusirru ala ma faalu wa hum yaalamun kon loolu leer na kon suñu borom moo joxe ndigalne na ngeen jéggalu suñu borom mu jéggal leen na ngeen suñu borom mu jéggal leen comme yàlla ay waxam do dañ inna allaha laa yuxliful mi'aad moo tax li nit kaa gi tuub yàlla di ko jéggal nee na nag li feeg nit ki di tuub yàlla di ko jéggal yàlla na salaatu nekk ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam hada wa inni al yawma qad nadimtu qad nadimtu min kulli ma janaytu mudh aqaltu am na ñu def mudh ghafaltu ñaar yëpp boo def wax ji dana jub incha allah wa xasida gi waxoon nañ ne xasida tuub la kon nag mu ñëw ci li war a jiitu ci tuub booy tuub daa am loo war a jiital moom lay wax moo tax ne xësa yëgal ne wa inni naka man sëriñ tuubaa wa inni naka man mii di jàng xasida gi al yow ma tey jii xadd na dimtu réccu naa min kulli ma ci lépp loo xam ne janaytu tooñoon naa ko mus aqaltu diirub ba ma xeloo diirub ba ma amee xel diirub ba ma xàmmee sama ndeyjoor a sama càmmoñ boo defee musu musu rafaltu mooy diirub ba ma sàgganee mu ne tey day damaa ñëw di tuub te kuy tuub bokk na ca sart ya la ca war a jiitu mooy rëccu rëccu la nga njëkkoon a def la Sëñ Tuubaa doon wax ci téere ba wa min shurutihi nadamatun ala ma fatahu min al maasi musjala kon nee na tey jii day maa ngi rëccu lépp loo xam ne tooñoon naa ko diiru ba ma amee xel ba léegi ndax nit bu amee xel lañ koy tàmbalee bindal bakkaar bu nekkee mu kàllaf wala diiru ba ma sàgganee mooy yàlla ya ma daa def tooñaage ya ma daa def yépp ci dara wër lu ko lu dul ak càggante neen tey ñëw naa ngi rëccu lépp mu ne is ngir daa réer na daa sànku na jullu umri li ëpp ci sama dund fii xayri taati zil ci lu topp yàlla mi borom màgg ka muulil xayri yàlla mi aji méngale aw yiw mi aji joxe tuyaaba mu ne damaa seetlu ne li ëpp ci sama dund dama ko paase ci ay moy yàlla waaye paase ko ci topp yàlla suñ borom subhaanahu wa taala te suñ borom nag moom buur bu baax la boo xam ne nit ki malgré danga koy moy. malgré nit ñëpp dañuy maase di ko mooy waaye du rek mu leen defal li leen war a defal du mu leen jox ay tuyaaba euh, man ngaa def mooy yàlla ga gën a màgg du tee rek suñ borom bàyyi la sa coobare man naa am yaa ngi yor oto mën naa am sax sa xaalis ngi gën a yokk man naa am yaa ngi jënd say lekk wala say naan di di ko naan muy neex lool léeg-léeg sax nit ki dem ba yaakaar ne mooy yàlla yi muy def wàññiwu ko dara am wax ne man daal damay seetlu ne su may nekkee ci njub di jàng alxuraan def li ma war a def du ma du ma am xaalis wala du ma def nàngam waaye su ma su duggee ci ay moy yàlla rek mel ni ay mbiram day baax ma ne ko moytul li wax loolu loolu foo ko dégg rek xamal ne mbugalum yàllaa ngi waaj a wàcc sa kaw yàlla ñu ci yàlla musal saa yu nit ki demee ba yëg ci boppam yu mel noonu ba noppi saytaane di ko rafetal mu defee ne ak mooy yàlla mooy tax ay mbiram baax kooku mu na ko wóor ne mbugalum yàlla mi ngi ñëw ci kaw moom la alxuraan doon wax sanastadrijuhum min haysu laa yaalamun dañ leen a jay te duñ xam ne ñu ngi leen a jay mooy picc moom nga bëgg a jàpp wala jinax ji jël gerte wala nga jël ab dugub suuy ko noonu fekk yaa ngi teg ak fiir ci suuf loolu képp képp ku ko seetloo sa bopp rek bay bo nga gaaw dellu ginnaaw xam ne lu mel noonu la ndax suñ borom bu nëmmee ci aw yiw boo defee bàkkaar rek da da ngay daal di gis effet bi da ngay gis mu tàmbale la indil ay jafe-jafe nga tàmbale loo doon yotu jot jotoo ca wala loo yaakaaroon suñ borom kii ko maanaam daal jox la ay signes yoo xam ne da lay wan ne boo amee xel da ne man mii xam lii ma def moo tax suñ borom fayee ma lii waaye di def aw di def ay bàkkaar di dem rek mel ne dalaa jig yàlla nañu ci yàlla musal kooku baaxut wa ma mujj nag asiran di aji dox jaanin di aji jeng lil hawa jëm ci bànneex wala seytaane ak jëm ci seytaane wan nafsi ak dox jëm ci bakkan wal xalq ak dox jëm ci mbindeef rek bàyyi yàlla nee na ma seedu na li ëpp sama dund dama ko mooy yàlla bàyyi li yàlla bëgg waaye may topp lu sama bakkan bëgg di topp lu seytaane bëgg di topp lu sama eh, dégg nga bànneex bëgg di topp li nit ñi bëgg rek man daal yàlla moom dama ko wonoon ginnaaw jublu nag yi nga xam ne mooy noonu doomu aadama ne lépp sama dund loolu seetlu naa ko moo tax tey maa ngi rëccu ba ma ko rëccoo ba noppi nag fa xultu ci laa wax nag ne taa iban aje dellu laa bilaa tawaane ci lu du yeexe ci yàlla ci laa waxe na ah, tey jii nag maa ngi tuub tey jii moom fa xultu nee naa qaa'iman mbir muy aju tuub bilaa tawaani ci lu du dud yeexee tey nag maa ngi tuub génn naa ca loola maa ngi tuub na war a jëm ca yoon yàlla mu yan may aji sàkku xufraana zil xufraani njéggaluk yàlla mii borom njéggal gi te tuub naa dellu ci yàlla tuub gu gaaw ndax tuub doo ko yeexee nit ki bu defee bàkkaar yeex gam ko yéexe tuub dañ ko cee bindal bàkkaar lu mu gën a yéexe tuub ñu koy bindal bàkkaar te bokkut ak nag bàkkaarub bàkkaar ba mu defoon ñu war ko ko bindal bàkkaar ba mu defoon ñu ko ko bindal bu wëlbatikoo di ko yéex a tuubaat nag su baa jëmmi yéex gookee rek day day jur yeneen bàkkaar dañ ko ci bindal bàkkaar ndax tooñ yàlla ba noppi nag maanaam fekk nit ki mu taxaw nga joggi ko mu geesu xam ne yaa ko joggi nga ne loolu lu muy nuru day mel ne kon danga koy fondoo kooku na indi coow kon nit ki boo ko joggee mu geesu ne la nanga maa ngi jégalu ci saa waaw waaye taxaw di xaar nag day mel ne tayeef da ci am wala dalaa neex nee na kon nag maa ngi jéggalu njéggalu goo xam ne njéggalu gu gaaw lay doon di tuub dem ci yàlla may sàkku ak njéggalam yàlla mi boroom jéggal gi ndax suñu boroom ku yabu rek boo ko moyee nga gaaw tuub ndax dee fi muy ñëwee day bettee te bokk na ci liy indil jafe-jafe nit mooy deewaale ak bàkkaar yaa rabbana woo naa la yow sama boroom yow sunu boroom yaa rabbana naa la boroom ba muy juróomi yoon yaa rabbana yëpp loolay ti loolay tekki da dégg ñenn ñi nag di ko firee neneen waaye nun bëggunoo wax lu nu wóorut yaa rabbana daal li muy firi mooy woo la yow yàlla mii sunu boroom mu ne ko iqbal yàlla na nga nangu tawbanaa sunu tuub mu woo suñ boroom juróomi yoon loolu la taw kiit taw kiit mooy bëgg a wone importance bi li ngay wax di waaj am olof yi dañ koy def bu njëkk mag ñi da nga dégg ñu woola diw nga wuyu diw ba muy ñetti yoon nga xam ne bi mu la wooyee bu mu wooyee bu njëkk bi nga wuyu ko rek xam na ne dégg nga ko waaye dalaa bëgg a jox importance dalaa bëgg a wax ne la li ma lay bëgg a wax lu am solo la léeg da dégg ñu la ñaati yoon laa woo ñu ne ñetti yoon su ko defee loola dalaa bëgg wax ne lii ma lay waajox am solo la loolu la ñuy tuddee tawkiit kon mu woo suñu borom juróomi yoon ne ko suñu borom yàlla nga nangu suñu tuub yi waaye yàlla na yàlla nañ suñu borom boole ñëpp suñu tuub bi jaahi xayri kulli xalqin ahmada alayhi solli summa sallim sarmada mu ne suñ boroom subhaanahu wa taala da woowoon juróomi yoon ne ko yàlla na nga nangu sunuy tuub mu ne ko tuub googa nag yàlla na ko nangul bijjaahi xayri kulli xalqin ci darajay ki gën ci mbépp mbindeef yi ci ki nga xam ne mbindeef yëpp moo ci gën laa lay ñaan loolu ahmada te moo di ahmad mu yonante bi sallallahu alayhi wasallam daa bëri ay tuur ci la bokk yàlla nekk ci moom ahmad mu yonante bi salli eh, wala boog salli yàlla na nga dolli xéewal alayhi ci moom yonante bi suma salim topp nga dolli ko wóolu sarmadan ba faaw yàlla na salaatu salaamu nekk ci yonent bi daa bëgg yonent bi ba du ko tudd mukk te du def salaatu salaamu ci moom mu ne ko yàlla nag ñu jéggal njéggal gi nag mooy lii mu ne ko waxfir yàlla nag ñu yàlla na nga ma jéggal li ma taqattu ñeel li nga xam ne dama koo fas dama ko denc bil janaani ci sama xol bi maanaam kenn mënu koo gis maa ngi jéggalu li nekk ci sama xel ak sama xol nga xam ne sax nit ñi mënuñu koo xam maa ko fas ci sama xol te du yoon loolu maa ngi koy jéggalu waxfir yàlla nag ma jéggal li ma nataxtu li ma jot a tudd bi ci sama làmmiñ lu bon li ma wax lépp li ma wërtoon wax ci sama làmmiñ muy jëw yaag mboolem lu mën a doon yàlla nag ma ko jéggal waxfir yàlla nag ma jéggal li ma la li nga xam ne laal naa ko bi lee dee ni sama ñaari loxo yi te waruma koo laal waxfir yàlla nag ma jéggal li ma ñeel li ma jot a dox bi rëj lay ni ci sama ñaari tànk yi te waruma ko dox jëm ci lu xaraam wala dox jëm ci am po wala yu mel noonu wax fir yàlla nag ma jéggal li ma nazartu ñeel li ma xool bi ay nee ni ci ñaari bët yii ñaari bët yi nga ma jox li ma ci jot a xool te dëgganut li ma jot a xool te waruma koo xool yàlla nag ma ko jéggal wax fir yàlla nag ma jéggal li ma stamaatu ñeel li ma déglu bil uznay ni ci ñaari nopp yi sama nopp yi li ma ci déglu te waruma ko cee dégg yàlla nag ñu ko jéggal wax fir yàlla nag ma jéggal li ma akkaltu ñeel la ma lekk bil batni ci sama biir wama ak la nga xam ne xada asaytu moye naa ko bil farji ci sama awra yaa rabba sama yow borom asamaan mu ne ko li nga xam ne dama ko lekk ci lu xaraam wala riba wala lekk loo xam ne léwut wala lekk loo xam ne léeruma wala lu mën a doon maa ngi koy jéggalu yàlla nag ma ko jéggal waaye li ma jotam mooy ci sama awra yàlla nag ma ko jéggal li nga xam ne jot naa ko mooy ci sama awra muy wàllu njaaloo yaag eh, dégg nga lu mën a doon ci loo xam ne day jur bàkkaar ci awra rek mu ne ko yàlla nag ma ko jéggal kon gis ngeen daanaka lii cër yi ñooy def mooy yàlla yi gën a mag sa xol bi sa xol bi gis nga ne mooy yàlla yépp ci xol lay jiitu moo tax sëñ bi waxoon ne alxalbu kal maliki fil a'daa'i nee na xol dafa mel ne ab général bu jiite ab guerre ci cër yi lépp lu mu bëgg rek cër yi dañ koy def ndax moom mooy togg affaire bi moo koy togg moo koy togg ba mu ñor mu doo koy séddale nag di la wax ne ak ah, kii de war ngaa mën a moom def ak moom nangam mën ngaa def mooy yàlla gii mën ngaa def mooy yàlla gee nangam xol moom mooy mooy président bi kon bu la yàlla jéggalee li nga jot a fas ci sa xol te du noona li nga wax ci sa làmmiñ li nga laal ci say loxo li nga dox ci say tànk li nga xool sa yaari bët yi li nga déglu sa yaari nopp yi ak li nga euh, dégg nga lekk te waroo lekk ak li nga mooy yàlla ci sa euh, maanaam awra loola day nekk juróom-ñaari cër yi juróom-ñaari cër yi ñooy def ak mooy yàlla boo ci yokkee xool mi seen président mu nekk juróom-ñett kon yàlla na nu yàlla boole jéggal sunu juróom-ñaari cër yëpp li ñu def ndax Sëñ Tuubaa nee na cër yi dafa jàkkaarloog cër bu nekk daa jàkkaarloog buntu ca sawara cër bu nekk daa jàkkaarloog buntu ca sawara bépp cër boo xam ne la yàlla bëgg defu ko nag bu ëllëgee day tàbbi ca buntu sawaram boobee yàlla na ci yàlla musal bu fekkee jëmm jëpp daa maase di mooy yàlla nag kon jëmm jëpp day mel ne sawara moo ko yeyoo yàlla na ci yàlla musal kon tuub ko am solo la ndax nit ki boo ko yàlla jéggalee yi nga xam ne mooy juróom-ñaari cër yi ndax léeg-léeg ngay fas sa xol bi léeg nga gis ñoo xam ne ñaan man damay faral damay faral di xalaat lu bon te doo ci man dara léeg sa làmmiñ wi yàgg nga cee wax loo xam ne ay tooxi doona la yàgg ngaa jaxase ay nit yàgg ngaa wax waxi caaxaan yàgg ngaa wax ak jigéen loo ko war a wax sa loxo bi lu ne laal nga ko ci xaraam sa tànk yi fu dox nga fa jëm ci lu xaraam sa bët yi lu ne xool nga ko su dee jamono ji sa nopp yi lu ne déglu ko la war doon dégg waaye lu ne lekk nga ko ci loo xam ne la leeru la loo xam ne léwut waaye mooy yàlla ku ne mën naa am def nga ci sa awra Eh, kon moo tax mu ne ko suñ borom yàlla na nga boole yëpp nag boole ñu ko boole ko jéggal waxfir lima qaddamtuhu bi fadlika waxfir lima axartu bi mannika ba léegi muy jéggalu suñ borom subhaanahu wa mu ne waxfir yàlla nag ma jéggal yow sama borom lima qaddamtuhu ñeel la ma jiital ci ay ñaawteef bi fàddalika ci sa ngëneel yi ci sa mbaax waxfir yàlla nag ma jéggal li ma axartuhoo ñeel li ma mujj a def ci ay ñaawteef bi man nekk ci say xéewal ci sa mbaax ba léegi rek mu ne suñ borom maa ngi lay ñaan ci sa ngëneel nga xam bul ma ci xool bul xool ne damaa yebaate bul xool li may mooy yàlla daa bari déedéet xoolal rek ci sa mbaax ngi jéggal ma mbooleem samay bàkkaar yu njëkk ak samay bàkkaar yu mujj mbooleem sama bàkkaar la ma njëkk a def ci ay ak la ma mujj def lépp suñ borom yàlla na nga ko jéggal jéggal lu la wàññi dara yàlla nag ma jéggal bi juudika ci sa tab gi li ma asharatu ñeel li ma nëbbu ñeel li ma wax fiir yàlla nag ma jéggal bi lutfika ci sa ñeewante gi li ma ñeel li ma feeñal bàkkaar yi day am yoo xam ne bàkkaar yi zaahir la am yoo xam bàkkaar yi baatin la mooy bàkkaar yi nga xam ne nit ki mën naa am da koy def mu feeñ am ñu ko xam wala mu fes ak bakkaar yi nga xam ne nit ki da koy def kenn du ko xam diggante ak yàlla rek mu ne suñ borom ñaari xeeti bàkkaar yooyu bu mu ci mën a doon maa ngi ñaan nga jéggal ma ko ci sag mbaax waaye ci sag ñeewant wax fir yàlla na nga ma jéggal li ma alimtu ñeel li ma xam yaa dal karami yow yàlla mi borom tedd nga ji mi minal jinaayati ci ay tooñaange wa ma lam aalami ak li ma xamut ndeysaan tuub gu tuub gu matale la man suñ boroom maa ngi lay ñaan yow mu baax mi li nga xam ne def naa ko ci ay tooñaange nga xam ne xam naa ne moom def naa ko yàlla na nga ko jéggal waaye na ma jéggal li ma xamut ndax nit ki léeg-léeg am na yu bari yu muy def yoo xam ne da xamut da koo xamut wala sax fàtte na ko mi ngi dëkk rek ci def ci lu aaya aaya ay ndekete xamu ko kon nag buy tuub na maasale loolu moo tax ma ne li ma li nga xam ne def naa ko mu wóor na ma ne fii mooy naa fi yàlla def naa lu mu wóor toon def yàlla nag ma ko jégal waaye li ma xamut it yàlla nag ma ko jégal mu ne wax fiir yàlla nag ma jégal li ma alim te ñeel la nga xam li nga xam ne yow xam nga ko yàlla ñeel la nga xam ne xam nga ko min nii bàyyi koo ci man wax ko yow dong fii amdin ci ak tey aw fii xata in wala ci njuumte bi afika ci sa jégal nee na maa ngi lay ñaan li nga xam ne yow rek yaa ko xam ci man moo xam ba ma koy def maako tey wala ba ma koy def damaa juum yàlla nag ma jégal loola gis nga ko kon am na loo xam ne nit ñi sax xamu nit ki sax xamu ko ci boppam nit ki xamu ko nit ñi xamuñu ko yàlla rek moo ko xam cib jaamam ma suñ suñu borom loola yow rek yaa ko xam ni ma ko suturaale ba kenn xamu ko man sax nga suturaale ba xamuma ko yàlla nag ma ko jéggale noonu moo xam nag bakkaar ba may def la maa ko tay tayaatoo ko def ko wala bàkkaar boo xam ne dama ko defoon ci njuumte wa aati nii yàlla nag ma jox xasanatan aw yiw fi dunya ci adduna wa yasiran ta jàppandal lii ñeel ma ta nga jàppandalal ma wa siran lii ta nga yombalal ma yaa samak dox fii xaddin ci ëllëg yowmal xiyaam mu ne fii ci àdduna yàlla nag ma jéggal ngir ma am fi dund gu teey ndax ñàkk bàkkaar day tax a dund dund gu teey lépp loo yóotu jot ko am ay xéewal waaye tamit bu la yàlla jéggalee say bàkkaar ëllëg yowmal xiyaam sab dox jéggi siraat dox jëm bis penc ba ñu pang day tax mu yomb ndax bàkkaar yi da lay diisal bàkkaar yi diisal ni ko alxuraan tuddee ashxaal ashxaal wala yaxmilunna ashqaalahum seen diis diisee mooy bàkkaar bàkkaar day diisal nit ëllëg yomal xiyaam mu ne kon nag yàlla nag ma defal fii ci àdduna tuyaaba ju yaatu waaye bu ëllëgee yomal xiyaam nga defal ma ju tuyaabu yaatu ak njëggal koo xam ne dana mën a tax a ah, sama dox ah, jëm foofe daal di gaaw incha allah wala tuwaaqid abdaka daifa bi dofihii id lam tazal latifa mu ne ko wala tuwaaqis yàlla boo jàppe yàlla boo fayantoo abdaka sa jaam bi ad daifa bay aji doyadi bi dofihi ci doyadeem gi bul ko topp ci doyadeem gi is ngir lam tasal mosoo dañ yow yàlla latifa di aji ñeewant mu suñ boroom yàlla boo ma jàppee sama doyadi gii ab jaam ku ne xam ne daa doyadi suñu borom yaa nu bind ñu nekk ñoo xam ñu manqué lañu ñu nekk ñoo xam dañoo dëgër bopp ba nga tudde ñu astaxalay ni ñun ak jinne yi ñun ñi nga xam ne dañoo mën a tooñ suñu bopp ba nga wax ñu ci alxuraan ne innahu kaana zaluman jahula doomu aadama ku mën a tooñ la te ku réer la kon yàlla boo ñu topp mooy yàlla boo ñu jàppee sunu doyadi gi eh, nee na xam naa sax yow dooñu ko jàppe ndax yow buur bu lewet nga boo xam ne doonu topp loolu incha allah wax fir lahoo yàlla nang ko jéggal moom sa jaam bii di tuub wax fir te yàlla na jegal jégal li ñeel ñaari waajuram wax fir yàlla na jégal li kulli man ñeel képp koo xam ne nu mi day askanoo ilayhi jëm ca moom képp koo xam ne dañ koo askanele mu dem ca moom nu muy askaneleef na ko ilayhi jëm ci moom sa jaam bii mu ko jégal moom sa jaam di tuub waaye yàlla na nga jéggal ñaari waajuram moo xam sëriñ bi moo xam yow miy jàng xasida gi sa jàmbu bu xeebu bii di la ñaan nga bañ koo topp ci doye dem gi yàlla na nga ko jéggal jéggal ñaari waajuram jéggal képp koo xam ne day askanoo jëm ci moom wax fir yàlla na nga jéggal li cheikhihi ñeel ab sëriñam wa cheikhi cheikhi ak sëriñub sëriñam wa cheikhi daaka cheikhi ak sëriñub boobee sëriñ suma cheikhihi topp sëriñam moomee mu ne yàlla na nga ko jéggal moom sa jaam bi jéggal ab sëriñam jéggal sëriñum sëriñam jéggal sëriñu sëriñu sëriñam jéggal sëriñu sëriñu sëriñam <laughs> su ko defee kon loolu ñaan ko gudd la kon na nga ko jéggal jéggal ab sëriñam ba keroog daal juróom-ñaari sëriñam wala lu ko féete jëm kaw rek yàlla na ko jéggal wax ji tax taxoon na ñu bari defe ne sëriñ bi wayut wayut xasida gi ñu ne lu tax ñu ne ndax sëriñ Tuubaa benn sëriñ la am mu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonante bi amul sëriñ kon nag bu ne yàlla na ko jéggal ab sëriñam sëriñoo sëriñam sëriñ muy gën a gudd euh, am na ñu waxoon ne xasida gi daal sëriñ bi doon ko sikk sàkk moo ko defoon defu ko waaye ginnaaw bi kilifa yu baax ñoom jàpp nañu sëriñ bi moo ko def mel na sëriñ defe naa man xasida gi ma ci yoro sax moo ma ko joxal boppam ngir ma di ko jàng euh, kon li nit ñi dafa bari ay sëriñ bi muy doog a tàmbali ndax waajuróom rek ab sëriñam la boo jàng xasida yi muy euh, téere yi muy taalif euh, ibnu cheikh yi lay wax kiy wax mooy ki nga xam ne mooy doomi sëriñam kon Sëriñ Tuubaa incha allah baayam ab sëriñam la baayam ab sëriñam la te gis nga ñu mel ne euh, sëriñ si fi nekkoon sax da leen daa jàpp ay sëriñ wala bi muy doog bi muy doog a tàmbali ah, su boobaa nag te baayam xam nga ne baayam ab xaadir la woon daa jëloon wér du xaadir amoon na ab sëriñ sëriñam boobee amoon na sëriñ ba ni ngay agsi sëriñ Abdou euh, Jaylaani kon mi ngi noonu euh, kon euh, sëriñ gi rek nekkul ginnaaw bi nag la ko suñ borom digal mu bàyyi lépp jàpp yonent bi sallallahu képp ak alquran ak suñ borom subhanahu wa taala wali jamii al muslimin ak mboolem julli ñi turran ñoom ñëpp wal muslimaat ak julli yu jigéen yi li xaluma jaraa ba ba fii may wax ak yow <laughs> li xaluma jaraa ba sànq ci suba ba fii may wax ak yow rek ba fu nit ki jàngee xasida gi rek na mel ne xasida gi keroog keroog boobee la mu ne yàlla na yàlla na nga jéggal mboolem jullit yu góor yëpp wala jamii al muslimin ak mboolem jullit ñu góor ñi tural ñoom ñëpp wala muslimaat ak jullit jigéen ñi kon njéggal gi daal yaatu na moo tax booy ñaan bëgg ñaan gi gaaw a nangu dee ci boole jullit ñëpp na nga na nga jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñëpp maa ngi leen di waaw ba fuñ jàngi xasee ga ca saasa rek ba sànq ci suba daal ba nii may wax ak yow rek yàlla na nga leen jéggal wasal salliyan yàlla na nga dolli xéewal maa salaamin ànd ak doole wóolu xat kafa goo xam ne doy na sëkk ala shafii ala shafii shufaa ca aji rammu way rammu ña aji rammu way rammu ña al Mustafa te moo di kañu tànn mu ne yàlla na salaatu salaam nekk ci yonante bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mboolem nit ñu baax ñi baax bay rammoo sax dañuy rammoo ci ramu yonante bi sallallahu alayhi wa wala aali ak ay waa këram salaatu salaamu yàlla nekk ci waa këram wala asxaabi ak ay saxaabaam ahlil aw bi ña di ca yàlla maanaa la li fekk am na taibun aji tuub xaboola taw bi nanguk tuub nee na maa ngi ñaan salaatu salaam yàlla nekk ci yonante bi salaa salaam ak waa këram ak i saxaabaam ñi nga xam ne dañ daa dellu ca yàlla lu bari dañ daa tuub li feeg képp kuy tuub yàlla di la nangul sëg tuub yàlla na salaatu salaam nekk ci yonante bi salaam loolu waxoon na ko ca tàmbali ba te waxoon naa leen loolu du dañ ndax suñ boroom moo ne képp koo xam ne tuub na ñëw ci man rek ma jéggal ko wax na wax ne ci alxuraan ne nanga wax gaa yi ni leen bu ñu naagoo gaa yi nga xam ne dañoo ay mooy yàlla ba mooy yàlla jéggi dayoo ñu ne man moo xam naa kenn du ma jéggalati xam naa ne kenn du ma jéggalati nee na nga leen wax ne leen bu leen naaw qul yaa ibaadiya allazina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah bu leen naagu ci yërmaane yàlla ndax yàlla day jéggale bàkkaar yëpp incha allah waxoon na ca tàmbali bi ne muhammadin wal ali wa sahaba maa xufira danbu li di inaaba li fekk kuy tuub yàlla nga koy jéggal ay bàkkaaram de ko nangul tuubam rek yàlla na salaatu salaam nekk ci yonent bi lool la tëjawaat mbokk yi lii mooy xasida ak tawbatu nasuux al jaalibatu lil futuux euh, muy xasida gu yéeme ci wàllu tuub ni mu ko tuddee lenn lu nekk mu tudd ko ne yàlla yàlla na nga ko jéggal ci saayari ci baatin li ma def li ma xool xasida gu am solo la incha allah yàlla nañ ci yàlla xiir ñu koy jàng te suñ borom saa yu ñu ko jàngee moo raxas ñu ba ñu set ci bàkkaar fóot nu waaye boole ñu ci ñi nga xam ne yàlla du leen toppati dara mbaay yàlla yéen mbaay mbaay yàlla leen ndax ñooñu am nañu suñ borom du topp dara du tee nag loolu du tee ngay def say farata def le nga war a def ndax doo xam sax ba xam yow ci nga bokkam déet yàlla ñu ko yàlla defal jéggal ñu jéggal mboolem jullit ñëpp ñu ci ak jaamu yàlla mbokk mi ko doon def di Alioune Badara Ndiaye képp ku jot ci xasir gi rek nga yokk koy ñaan suñu borom moom it jéggal ko jéggal ñaari waajuram jéggal njabootam jéggal mboolem jullit ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.